waaw salaamaaleykum mbokk mi maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax ki ndongale Xaadim Kebe la fii ci Côte d'Ivoire Abidjan euh, dama seetaan seen benn vidéo ci YouTube bi wax dëgg yàlla muy lu am chance waaw muy euh, ci wàllum viol bi nga xam ne dafa am Sénégal jamono yi sonal lool bari lool ci Sénégal euh, ak wàllum ray mi mu xaw a doon affaire boo xam ne wax dëgg yàlla daf nu xaw a jaaxal trop parce que yooyu ci réew yi rek nga ko dégg ay ku mel ne ay Nigéria Côte d'Ivoire ay comme yooyu daal genre réew yooyu daal dëkk ñag yi mais léegi dafa bari Sénégal trop trop te man jàpp naa ni am naa ci yaakaar ni li ñu war a indiwaat mooy peine de mort ku ray ñu ray la. parce que ñi naan loolu waru am yëpp dañoo rëyul seen mbokk rek mais képp kun rey sa mbokk euh, ci yenn anam yow di nga xam ne lii rek moom lañ war a doxal instant Sénégal. salaamaaleykum sëñ bi na nga def mbaa yaa ngi si jàmm naka waa foofu ça va très bien waaw maa ngi tudd Ibrahima Dramé maa ngi tudd Ibrahima Dramé dëgg waaw waaw naa sa seetaan naa sa image bi tamit waaw sa image bi seetaan naa ko bu baax a baax loo wax moom dëgg la waaw ñun ñoo war a jàppale suñu réew. li yëpp duñ ko mën a bay si gouvernement bi ñun ñoo war a jàppale suñu réew jàppale suñu njaboot aar suñu njaboot billahi aar suñu njaboot ñun dañu sonn trop surtout femmes yi tamit billahi sonn nañ trop sonn nañ trop woon na sonn nañ trop la brigade de femme lu ñu nekk di def ni loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg ñun ñoo war a jàppale ñun tamit loolu ñun ñoo la war a jàppale loolu tamit rôle bu rafet lañ nekk di def nii rôle bu rafet la billahi route bu rafet rafet rafet rafet lañ nekk di def ni li bëggul continuer moo nekk Sénégal musiba la lii musiba la bu mag la barakaat di dëmbal lañ xaw ma ban mooy femme lañ lañu rey instant sama xol bi sama xol bi instant yi xaw ma lu may xaw lu mu mën a wax femme yi sonn nañ trop femme yi sonn nañ trop gouvernement dañ ñu war a jàppale dañ ñu war a jàppale. billaay de ma dëgale si journal mun ma ko muñ même ndogu sam ndogu ndogu bu rafet sam mun ma ko def munuma ko def sama xol bi bon sama rongo gën man xoolal di rek xoolal xaw ma kooku waajurum moom lañ yaakaar xaw ma lan billaay fa ñu jàppale ñu ñu jàppale suñu réew ñu jàppale soxna tamit ñu leen bu baax a baax la brigade de femmes bi ñu nekk di def ni loolu mooy rôle bu rafet rôle noolu lay mel lii mooy rôle bu rafet waaw ma leen di ma leen di ziare waat brigade di leen di ziare di leen encouragé di leen di ziare bu baax leen di encouragé yàlla seen rôle bu dem ca kanam a kanam waaw waaw maa ngi tudd Ibrahima Dramé dëkk fii Ziguinchor waaw. ku fekk nit ci biir këram ba pare ray ko kooku war nañ ko mën a rey xam nañ lu mu def moom moo ko tey ku fekk nit ci biir këram sàccal ko ba pare ray ko kooku war nañ ko mën a rey li mu def moom moo ko tey ki dab nit ci mbedd jël ab mille franc wala ab cent franc ba pare ray ko kooku war nañ ko mën a rey ndax xam nañ ni kooku lu def moom moo ko tey lu waay def tey ko kooku war nañ ko mën a rey lu waaye def tey ko kooku war nañ ko mën a rey ku ne xam na ni nit lu mu def mu tey ko ak lu mu def te tey ko ku ne xam na ko loolu daal bu ñu deful li fi xew birki démb ak li fi xewaat birkiwaat démb ah du fi dañ mukk ku ray nit ñu dem tëj la nga def fa ab benn dix wala ab cinq ans ñu bay la nga génn kooku tiitulul kenn tiitulul kenn képp ko bëgg def dégâts tamit danga koy def rek ñu tëj la yow buñ la tëjee dóoruñu la saagawuñu la yaa ngi lekk yaa ngi naan comme ni nekk ci biti kon loolu du yëngal sax loolu du la yëngal kon war nañ mun a appliquer lii nga xamante ni moom lañ bëgg appliquer ci ay charte yoo xamante ni dana mun a oyof ci ñi nga xamante ni tey ñu li def képp koo xamante dafa tey lu mu def a ah, ñu appliquer ko ci kawam rek jàmm ne waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ziar naa leen bu baax nag ah, ñoo ngi jégalu ñoo ngi jégalu ndax téléphone bi day planqué wu mais ñu ngi massawu ñi nga xamante ne ñoom da lii dal seen kaw ñu ngi leen di massawu bu baax a baax di wax ne rek yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak képp koo xamante ne rek tiis bi dal na sa kaw di ñaan yàlla defaat jàmm ci Sénégal di ñaan yàlla defaat jàmm ak sutura gi nga xamante ne moom la suñu maam yi doon dunde démb ak barki démb lu mel ni bu fekkee doon na am day bëriwul kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla delloowaat si sutura soosu yàlla nañu ci yàlla delloowaat di wax président de la république Macky Sall tamit yàlla nañu dégg yàlla na jot suñuy vocal dégg ko parce que tamit moom moo fi nekk moom mooy président bi war na mën a am taxawaay boo xamante ne day nguuram de ba bu fi jóge sax trace bi mu fiy bàyyi ku nekk di nga ne ay ba fi maki toogee nangam ci lu rafet ci lu baax euh, gaa ñaawalul dara waaye bëgg nañu mu taxaw si taxawaay boo xamante ne ni bu ëllëgee fu nekk sàllangaari lam tooro dinañ la fa joobe ci lu baax loo def ci réew mi macha allah euh, taxaw ci peine de mort moom war na mën a taxaw war na mën a am ndaxte bu fekkoon ku rey ñu rey la defe naa ne lii dina fi jug ñu ngi jéggalu nag kàddu yi lu ci am loo xamante ne wax ju teggunewul la wala wax ju safaanu maa ngi wax ne man mii di wax maa matul rek bay wax mais maa ngi ciy jéggalu bu baax a baax ah, di ñaanal ñëpp jàmm nag yal na yàlla defal ñëpp jàmm ak sutura asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki Sénégal mbokki àddina bi yëpp maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen gërëm yéen ñi envoyé bi suñu xol jeex na ñun yaayi doom yi ñun jigéen lii ñaaw na ñaaw na ba fa ñaaw di yem ñaaw na lool lool ndax tin jigéen en tant def nii mel ni yow amoo yaay wala amoo doom bu jigéen li rafetut te war nañ cee jóg ki matuwaay. war nañ cee jóg lu ñu war a jóg la lu ñu war a jóg ndax li ñuy seetaan ci àddina bi ñaaw na torop en tant que Sénégal lu bon li nar fee sax ba abadan boo defee lu bon ñu bëlëf bëlëfal la bàyyi ñi ngi rey nit ñi comme weñ ah sàcc sax bu ñëwee sàcc la rey la yaay perte te boo dee sàcc ñu ne sàcc bi ñu dóor lu tax ñu dóor ko fekk jigéen ñi ci seen biir yi kër di leen toroxal di leen ménager moor ah lii ñaaw na torop ñaaw na. war nañ cee jóg kilifa yi war nañ cee jóg président war naa wax ci lii war na cee wax de ñu ngi seetaan loo xam ne nii ñaaw na torop waaw te ku tekki tey jigéen la jur kon war na noo dimbali jigéen ñi jigéen ñi ñu toroxal war nañ koo bàyyi maa ngi jégalu bu baax nag wasalaam. macha allah nag ndax euh, Sénégal doon na réew moo xamante ne dañ ko doon ndamoo mais jamono yi ñu toll nii defe naa ne ah Sénégal bu ñu sàggantewul bu ñu sàggantuwul Sénégal dina bokk ci réew yi nga xamante ne mooy réew yi nga réew yi nga xamante ne kenn du leen tudd si lu baax réew yi nga xamante ne ku wax safaan rek tudd dëkk ba nañ leen bañ loolu ñun waa Sénégal surtout nag ñun ndaw ñi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy aveniru euh, Sénégal ñun ñi nga xamante ne suñuy doom ak suñuy rakk ñu ngi suñu ginnaaw ñu war a defar ba mu rafet waaye day ñu ngi koy bëgg yàq nañ leen gestuwaat nag suñu ginnaaw te jéem a gëstu xool li mag ñi defaroon ñu xool naam mënuñu leen a dab ndax ñoom day ñu ngi daw te ñu ngi daagu ba tey mënaguñoo àgg kon nag nañu xoolaat bu baax lu ñuy def xool nu ñuy taxawaate pour mën a joxaat senegal cër boobu noonu mu amoon ndax day mag ñu baax ñëpp fi lañ tëdd maa ngi jéggalu nag salaamaaleykum salaamaaleykum bu baax ñu ngi ziar bu baax a baax a baax du rafetlu bu baax sa waxtaan déglu nañ ko sànq fekkoon ñu bëggoon ci juddi bi di xool ba dajeeg waxtaan bi déglu ko mais am na solo trop trop trop trop waaye li ñuy ñaawlu maanaam li am Tamba li am Hersent li am feneen ak feneen kenn rafetlu ci dara dara dara dara dara dara ñëpp koy ñaawlu wax dëgg yàlla waaye. dafa fekk nii viole bi dëgg la bëri na lool ci dëgg bi foo tourné nga dégg boo ko dégg boo toogee benn fan ñaari fan ñetteelu fan bi di nga dégg ak ah, fii am na viole même bu ñu rayul am na viol nga gannaaw si fa nga toog a dégg ñu kii violé nañ ko ray ko parce que kii violé ko bu ko xamee day la fait que ma ko rek ray ko day bañ bu ko rayul day bañ mu siwal ko mais maanaam bu bañee kook siwal ko suñu borom moom mu ngi gis lépp xam ne lépp maanaam liñ ci mën a wax bëri na lool lool lool lool lool lool lool lool waaye ku fekk ni li olof ñaari wax ko wàcc sa ànd rek boo demee fekk borom dog ci maanaam ñun dañu dem ba bàyyi li nga xam ne moom lañ moom te ku bàyyi moom nag boo demee di jël yëfu jàmbur di nga fekk jàmbur toog ci yëfam su boobaa nag di ngay dóor dàq ak moom te boobaa ci yow lay jógee comme maanaam ñun liñ moom nañ ci toog bañ ko bokk kenn bañ ko séddoo kenn bu dee lu baax la ah mën nañ ko partagé séddoo ko ñun ñëpp bu dee lu safaan la wala lu bon la ah ñu bañ ko xalaat sax ba koy def ah, di wax ni kenn ku ni nañ vigilant rek kenn ku ni nga bàyyi xel ci say doom ñun ñi man mii di wax ak yow lu ma nekk nekk ndaw ah am naa tout tànk am naa doom mais sama doom kër ñun kër giñ kër giñ dëkk euh, dafa nekk ak ay xale yoo xam ne yu tollook moom des fois damay du ci bañ dara damay ñëw di ko surveiller di xool bu nekk ak ñoom. dama koy xool bu dama ma wàccee ñëw sanguwul ma ne yaay ji sangu ko bu fekkee solo la ko yére solo la ko tufa wala kuus ko ma ne ko eh jëla kii nga kuus ko parce que on sait jamais lii ak lii ak lii parce que dëkk bi fi mu nekk nii kenn bañatul lenn comprendre nga des fois nit def lenn benn affaire ñu naan kii dafa feebar fekk ni kooku dafa topp naf si bakkanam rek waaw wax dëgg yàlla waxtaan bi nga waxtaan am na solo trop amul dara loo xam ne war nañ ko cee jubbanti waaw di jéggalu bu baax a baax baax di leen ziar bu baax di leen wax li ngeen def rafet na trop jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah sama mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax baax a baax te partager ak yéen nakar bi nga xamante ne nii dal na tey ji suñu mbokkum jullit muy soxna Mariama mi nga xamante ne nii nii euh, tiis bu rëy dal nañu dal ci ay mbokkam ndax ay mbokk jullit ñoo bokk lépp. waaw ndax mbokkum jullit lépp lu ko dal rek dal na moroomu jullitam te li ñu ko def nii metti na sama xol torop barki alxuraan karim démb sama metti ndax lii képp bépp jigéen bu nekk rek boo ko gisee wala nga dégg ko rek dina la metti xoolal ki yàq aveniru jàmbur bi ak kii lim dara rêve yépp ci dundam tey nit yàqal ko ko nii te yàq bu jaara rek ci dem ci jëmmi doomu aadama joo xamante ne nii lépp moom la ndax lan topp bànneexu bakkanam ak bëgg-bëggam xanaa man damaa yaakaar ni xanaa góori tey yi ñoom xanaa ñoom xooluñ seen yaay jigéen yi xanaa ñoom xooluñ seen waajur yi xanaa ñoom xooluñ seen mag yi ak seen raq yi lépp la nga xamante ne nii buñ ko defeen sa mag du la neex ñu def ko sa raq neexu la ay waay waay waay bu ko def raqu jàmbur bu ko def doomu jàmbur bànneex boo xamante ne nii ni dalay jural ëllëg naqar bànneex jarul loolu vraiment bànneex jaru ko nañ leen xoolaat suñu bopp xale yu góor yi dee yi rey yi bëri na te jigéen ñi rek la ñuy rey jigéen ñi lañuy jàpp di rey di leen def ay ñaawteef di leen violé di leen def loo xamante ni ñun yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko sëriñ yu baax gërëmuñ ko nañ leen xoolaat góor ñi xoolaat leen bu baax fi ngeen teg seen tànk te xam ne barki Seydina Muhammad bis dina ñëw kenn ku si nekk di nga wéeteeg sa borom ba yaakaar ne yow rek la yàlla bindoon ci kaw suuf. xoolaal leen bu baax fi ngeen tegaat seen tànk yi xamante ne nii lii dara jaru ko dara jaru ko ci kaw suuf maa ngi tuubaat bu baax tey jéggal xam ne nag maa ngi koy jaar ay mbokkam di ko jaar ay waajuram di ñaan yàlla sama borom mu dolli leen xolub muñ ci barke Seydina Muhammad métti na ba fa métti yam taw feex ak tey si rek yéen tamit ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ci kàddu yi maa ngi tuubaat bu wér salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi siyaar naa la yéen a ngi am jàmm baax di am tawféex ah thème bi de moom a tax ma jël numéro bi dugal ko sama whatsapp kontaan naa ci lool sëñ bi ci li nga wax nag ndax àdduna ji dama xamul ñun jan àdduna lan nekk léegi ak ci jan jamono lan nekk ak ban xolu muñukaay yi fi nekkoon suñu maam yi bàyyi woon ko fi xaw ma dafa jóge ci ñun am ngor moo nekkatu ci ñun waaw li nga wax am na solo lool te ñun a ngi lay taaxal di la diglu man nag sama xalaat bu gàtt loolu yoon am na ci yoon wàllu yoon am na ci il faut yoon jël ay matuwaayam ndax lii dafa war a jóg senegal ndax réew bu ne réewu jullit la ay réewu jullit la dana war a jëf-jëfinu jullit nag boo demee ba doo mottali koo sa ngor lu la neex def dangay xalaat yamal xiyaam salaamaaleykum dégg naa seen kii bi seen wax bi si vidéo bi jël naa foofu laa jëlee numéro bi mais vidéo bi seet naa ko xool naa vidéo bi affaire bi defa ñëw trop affaire bi dafa metti dafa metti man ma Mahamad Kande région Kolda la rek communauté rurale commune Dabo mais man lu ma gis-gis affaire lu ma gars lu may wax si kii si rajo bi nii ñu appliqué ko ku rëy ni ku lee parce que lii moom affaire bi dafa ñaaw trop affaire bi dafa ñaaw kii lu ma def nii du yoon jarul tej mu rëy rek loolu moo gën kenn soo gisee loolu day day day day moyt waaw wasalaam